cant ak ngërëm ñeel na leen ami site internet net bi TV li na fës ci bopp xabaar yi dañ koy doo rek ñeent fukki candidat ak benn yi nga xamante ne rek daal dinañ leen recalé ci parrainage yi nga xamante ne rek moom lañ doon amal foofa ca conseil constitutionnel ne nañ rek pare nañ pour porter plainte ki nga xamante ne ñoom ñooy nekk ca conseil constitutionnel ginnaaw rek bi ñu gisee ne rek dañ leen di fonto bu baax moo tax nañu daal di recalé seen recalé seen candidat ba tey rek yooyu les candidats la ñu daal di xam ne rek ne nañ nag niki tey ji fas yi ne nañoo nag continuer seen xeex ginnaaw ba woon di soxna Aminata ba ndëgën ni ma nga ànd ak moom la mu daal di xam ne moo di ki nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca conseil constitutionnel ginnaaw bu mu gisee ni rek dañoo sàcc nag lii di parrainage am ki xam ne mbir mu nu mel di soxna Aminata Touré moom mimi nag la mu daal di xam ne rek mooy am nañ ñëw volonté boo xamante ne rek mooy volonté sélectionné ñii di candidat yi waaye bu fekkee ne rek ñoom ci seen jëmi bopp nag dañuy del di xool kuy jàll mbir mu nu mel soxna Aminata Touré nee nag ragal bu fekkee rek luxus gi dafa am ci yooyu lee mbir di kaddu kii di mu mel ni nag grève bi nga xamante ne rek kii soxna Aminata Touré doon na ko rêvé ngir nekk candidate ci jongante présidentielle ñu doon ma ci atum 2024 bi la nag nag ni rek uh, boobu la yelwaan da dinay këpp ndax ancien premier ministre ba woon di Aminata Touré réussirul nag uh, ci état bu parrainage yi mu mel ni rek jamono ji looloo tax nag candidature am daal di invalide ki ko invalidé nag di conseil constitutionnel ginnaaw ay heure yi nga xamante ne rek moom la jot boobule nouvelle kii di ancien premier ministre ba uh, di ki nga xamante ne rek moom moo nekkoon camarade de parti bu président Macky Sall la mu daal di xam ne rek ginnaaw réaction yi nga xamante ne rek def na ko ci kanamu journaliste foofu fa ca siège bu conseil constitutionnel moom Aminata Touré nag la di xam ne ne échec bi mu échec nag mbir mu nu mel day wane ne rek contre bi nga xamante ne doon na ko def maanaam daal ñaxtu bi nga xamante ne doon na ko ñaxtu rek troisième mandat bi nu mel moo waral rek ñu daal koy xañ yooyu les parrainage te kii di loxo Macky Sall nag daal di wuti di kii di soxna Aminata Touré soxna Aminata Touré nag waxaat rek moo di ne nag bu fekkee ne rek régime mu Macky Sall ci seen jëmmi boppam xeex bi nga xamante ne doon na ko xeex troisième mandat moo tax nag ñu daal di koy recalé ngir mu ne bañ a doon candidat ci élection présidentielle doon ma jëmmi boppam nag xamul sax li nga xamante ne rek moom la xam waaye nag bu fekkee moom président de la république ci jëmmi boppam nga xam ne nekkoon na délégué national ci ñaari élection yi nga xamante ne rek moom moo passé kon nag tey jii nag la ñuy ñëw rek di ko wax ne ko nag mënul def lii di parrainage mu nekk loo xamante ne nee na xel mënu koo nangu benn yoon ginnaaw nag bi ñu ko obligé ba noppi rek ci yenn région yi nga xamante ne rek euh, gox yu bari rek ak dëkk yi fasantu ko yu bari dañ ko cee créer ay doublon yoo xamante ne rek amul euh, benn yoon waaye nag seen volonté du lenn rek lu dul xañ ko nag mu bañ a bokk ci jongante présidentielle yu ma ci atum 2024 bi euh, comme nañu ko defoon ak Ousmane Sonko waaye nag ki nga xamante ne moom mooy ancien premier moo di ne moom ci jëme boppam nag nag mën nañ koo xeeñ lii di candidat la waaye nag ko dina continuer di xeex combat bi nga xamante ne rek moom la yàgg xeex di coowal troisième mandat ndax nag jot na rek ñu daal di amal élection yoo xamante ne élection yu dal lay doon yu yu transparente élection yoo xamante ne rek yu mucc ayib lay doon ndax nag jot na rek ñu jëlee fi nguur gi fi nekk tegaat fi beneen nguur gu wees di kat kaddu kii di soxna Aminata Touré du ñàkk dinañ ci xusandiwaat ci yeneen i jotaay xabaar joxe ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bës cloche de notification ngir amaat yeneen i info